asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi taamu dakarnet point com ñu yeggee leen xibaar bi nga xam ne daf ñoo dàpp ne di xewee fële ca Thiès benn dëkk ñaari gaar moo di ab xale bu góor buñ fa jam paaka ba mu mujjee ci faatu ñu fàttali leen nag Thiès jamono ji xaw na tàngu trop ndax foofu lañu reye woon Marème Diagne euh, fële ca quartier Médina Fall rey fa tamit Khady Diouf euh, fële ca foofu ci Médina Fall tamit ba tey tey ji nag euh, ci boori stade champ de course la mbir mi xewee ci quartier Hersent bu Thiès ñaari xale yu góor yu doon xeex ba kenn ki mujjee jàmm moromam ki ñu jàmm nag nee nañ mi ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom ba fanweeri at waxambaane la maanaam xale bu góor la finalement nag jam-jam bi ñu ngi ko jamoon ci côté gauche bi ci boori xol bi ba finalement dafa mujjee ñàkk bakkanam Euh, jamono ji nag euh, corps bi ñu ko évacué fële ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès en lank euh, l'enquête bi di génnee ni mu demee dinañ leen ko toppal yeggee leen xibaar yi lu ci xew rek incha allahu rabbi dinañ ci delsi yeggee leen ko ba ci ba mu gën a leer jërë ngeen jëf